waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu eggalee beneen bunt bi ci ba tey ci jabril kasri mu ne taswijuhu xadijatu bi izniha wa imaaniha qabla jamiil ummati lama raat alaamatu nubuwati fiihi baada tajribati mu ne mariage bi nga xamante ne marié bi nga xamante ne marié wu na ko bi maanaa sëy bi nga xamante ne sëy na ko ak Khadija moom yonent bi salaa salaam ci ndigalam moom Khadija te ak ngëm bi nga xam Khadija gëm na ko ginnaaw balaa ñëkk njëkk ñëpp umma bi yëpp moo ci njëkk gëm keroog ba nga xamante ne gis na moom Khadija alaamatu nubuwa mooy tegtal bi wane ne kii tegtala yonent ci moom fii ak ginnaaw bi nga xamante ne tajriba examiné na ko moom la bàyyi bëgg a indi fii bàyyi diggu woy ba tey lépp nag laam lay jeexe mu ne raqabat xu xadijatu israat fi israat fi naw mi badran tahwi laha bittisaali raqab raqabat xu fuglu na ko wala ba contrôlé na ko xadijatu xadija nday xadija isara at keroog ba nga xamante ne gis na fi naw mi ci ay nelawam badran ab weer boo xamante ne tëx wi daanu na weer boo xamante weer boo xamante ne daal daanu na di laxaa ñeel ko ci moom bi tisaali mel ni kuy jokk ak moom di jokk ak moom mel ni kuy sëy ak moom daal la bëgg a wax keroog bu ma géntee gént googu daal ci la daal di ne ah kii moom di jar na bàyyi xel jar na contrôler ci la yónni may saratu mooy kiiwam boobu noonu mooy surgawam boobu noonu pour mu dem ànd ak yónni ci yoonu commerce boobu bu siiw boobu pour mu koy xool nga am lu mu wax lu mu gis rek da koy ne bindal bindal bindal bindal soo ñëwee nag ma wax lépp bul bàyyi dara ci moom loolu foofu loolu la bàyyi di woy fii nii. mu ne jarabatuhu natt na ko wa am anat mamal na nazaran ay xool xool mamal na bëril na xool fii ci moom yontu saa salaam bi siddiqil axbaari ci dëggub ay xabaar wal adlaali ak ay tegtal yi nga xamante ne may saratu war na ko ko indil na ko ko mu ne xatabatuhu nobaan na ko nobaan mooy doxal na boppam ngoro bi li nafsiha ñeel ngir moom ngir boppam xatabatuhu doxal na ko boppam nobaan na ko nobaan xatabatuhu nobaan na ko li nafsiha ci boppam bi maanaam doxal na boppam daal ngoro bi kon lii jàngal nañu ne jigéen mën nga xool nit bëgg ko góor nga doxal ko sa bopp waaw ci lu jub daal moo tax nañuy wax ci ngir ngir nit ki takk la waaw ndax xadis ndey xadija loolu la wone fii loolu la bàyyi di wax bàyyi ne nag amanat waaye it keroog ba nga xamante ne ba mu ko nobaane ba yàlla may leen ñu sëy bàyyi nee na tamit terewut amanat mu yonanti xadija mu njëkk a gëm xabla jamil abai wal anjali lu jiitu mbooloo mi bàyyi ak doom yi bàyyi ak doom yeeg yëpp ci umma bii xadija moo leen njëkk a gëm kooku yàllaa ko ko may xii na jaa al aminu ci waxtu bi nga xamante ne dikkal dikk na al aminu ki ñu wóolu ki mooy yonent bi saa salaam bi wax yi ak wax yu fil xaari ci xaaru xira ci grotte boobu noonu xur boobu fa nga xam jibril ñëwee la fa mu daan dem di fa toog di fa jaamu yàlla ba jibril fekk ko fa fa wafaaha ci la daal di dikkal xadija ci la daal di ko ñëwal nag albadru moom weer bi soo déggee bàyyi wax albadru weer bi rek yonent bi lay firi yonent bi lay lay woy ne moom mooy mooy badru mooy weer bi fa wafaaha fa wafaaha dikkal na ko moom xadija weer bi raw ma isdimaal yi ngir sàkku mu càngaay ngir sàkku mu sàng ko mooy zamilu ni zamilu ni bu siiw boobu noonu ngeen dégg ñuy wax tout le temps ba tey bàyyi ne fa hiya awnul haadi ala siqlil waxyi qadiman bi fi'liha wal maqaali fa hiya naka moom day xadija awnul haadi mooy ndimbalëb alhaadi kii aji gindi gi mooy haadi ci tuur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndimbalëb yonent bi ala siqlil waxyi ci diisaayab waxyu bi nga xamante ne dikk daan na ko dikkal su dikkee ba mu jaaxle amul fenn kenn ku ko assister ci événement yu diis yooyu xadijatu moom mooy ki nga xamante ne moo doon dimbali suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadiman lu njëkk nag balaa kenn di ko dimbali ci lu njëkk ñëpp bi fi li bi fi aliha bi fi aliha ci ay waxam nag wal ma ci ay ci ay jëfam wal maqaale ak ci ay waxam waaw moo ko njëkk a dimbali bi fi aliha ci ay jëfam ak ci waxam suñu waxee jëf nag mooy ci wax ju ra ci ci dimbali na ko ci sàng buñ ko sàng jëf la dalal bi muy dalal xelam jëf la toppatoo bi mu ko doon toppatoo jëf la jox bi mu ko doon jox ay alalam di ko dimbali jëf la wal maqaale ak wax yu baax yooyu yi nga xamante ne doon na ko ko wax di ko dalal di dalal xelam kon Khadija moo njëkk a assisté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sax mos na ko wax day toog ba ci yàgg rek xool fenn rek xaw absenté Aïchatu ne ko xanaa sama génn moom ngay xalaat ne ko kooku de mooy ki ma njëkk a gëm moo ma njëkk a dimbali moo tax du ma ko mës a fàtte moo tax it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musul fàtte Khadija yal na yàlla fayal ñi ko radiyallahu anha mu ne rubama jaal Mustapha bari na ñëwal Mustapha wa huwa maxmuunun fekk ñëw Mustapha fekk mu nekk koo xamante ne ku ñu xamloo la li am ren ci mbir fii wax yi fii fii wax yi fii wax yi mixwaali ci wax yu boo xamante ne wax yu buy tiitalaate la wax yu bu diis boo xamante ne ku dul yónnante rek attanoo ko wax yu boo am ni muy dikkee daal foor na fooraay goo am am na tàngoor goo xamante ne daal loolu moo waralaan yónnante saa sam daan ñàkk su ko fekkalaan ci gëléem sax gëléem gi day sukk ngir diisaay wax yu bi mu ne yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam Khadija moo ko doon toppatoo doon jàppale ci waxtu yooyu noonu yëpp kon ñoo ko dundandoo mu ne waazaratuhu dimbali na ko wala bokk jàppale na ko waazara mooy assistant wala ministre wazir mooy assistant mooy ministre bi maanaam mooy doon moo doon ministre am moo ko doon assisté moo ko doon jàppale waaye nag yemu ci waaye rafetal na jàppale bi moo tax mu ne waa ahsanat fa hiya haarunun lahu ayadatuhu bil amwaali fa hiya naka moom xadija ginnaaw bu mu rafetalee jàppale boobu mu doon jàppale yonent bi moom kat mooy ki nga xamante ne bàyyi nee na moom la dàkkantelee xaaruna lahu bu yonent bi mu ne yonent bi daal xaaroon na mooy xadijatu allahu akbar xadijatu dafa mel ni xaaroon na ci dafa mel ni comme Moussa xaaroon na nu mu meloon ci Moussa Xadijatu noonu la meloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayadatuhu dëgëral na ko bil amwaale ak alalam ci alalam ndax Xadija moo doon dépensé di dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa njëkk dara balaa njëkk kenn di ñëw baadaha mu ne nag ginnaaw nag moom Xadija jaahu dikkal na ko al atiq ki nga xamante mooy ki ñu goral ki suñu waxee al atiq rek mooy Aboubacar Sadiq Aliyun topp Alin suma Zayd topp Zayd Ousmaanun Ousma Ousmaanu topp Ousmaan baada Bilal ginnaaw Bilal mu ne ñii dikkal nañ yonent bi ginnaaw Khadija wa ataa dikk na amirun ki ñuy wax amir wa talhatun ak talxa saadun ak saad ibn abi waqaas wa zubayr ak zubayr ibn awam mu ne jaau ñoom ñëpp dikk nañ li nay lil wisaari ngir am sellab jokkoo wabnu awfin ak usmaan ibn awf ubaydatun mooy abu ubayda ibni jaraax wa saidun ak said xamsatu ak xamsa al amu ki nga xamante ne mooy bàyyi tax yonent bi nga am moom bokk ak moom benn bàyyi laysu laysu yawmil qitaali ki nga xamante ne moom mooy gayndeb bésu xeex bi xare badara amsa xeex na fa xeex bu am solo mu ngi daanu uxud xam sa moomu bàyyi ko dàkk dade mooy gaynde bisab xeex bi dëgg dëgg il avait fait ses preuves wal imaamu al faruq ak ilimaan bi nga xamante ne mooy alfaarux dëgg-dëgg euh, kii tekkale dëgg ak fen imaam la woon ndax Seydina Omar ku simple la woon ki nga xamante ne danaan wax naan gëléem gi gëléem gu gu gu gu gu faqastalu sax ba daanu ci sama ci sama xilaafa ragal naa sax yàlla laaj ma lan moo tax ba defaruma yoon bi yoon yi ni mu waree ba muy faqastalu nga war a xam ne ne kooku ku mat njiit la kilifa dëgg la alfaaruq ki nga xam ne mooy tekkale dëgg ak fen baadu ci ginnaaw ga ataaxum dikkal na leen dikkal na leen moom za iqtida za iqti za iqtida in muy koo xamante ne borom ab roy la lil Mustafa ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw ñii ñëpp ma tudd bokk la bàyyi nee na ginnaaw ñii saxaaba yi ñu tudd yëpp Omar ci lay doog a dikk waaye nag mu doon ilimaan goo xamante ne ñoom ñëpp tamit dañuy mujj wëlbatiku topp ko topp ci ginnaaw ginnaaw Aboubacar mu doon koo xamante za iqtidaa i borom roy la lil Mustafa ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di Mustafa za iqtidaa za iqtidaal yi ki nga xamante ne mooy borom maandu ki nga xamante ne mooy yamale moom yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam qad ala kawe na ad diinu diine gi baada islaami haza ginnaaw ba Omar duggee ci lislaam bal alaa bàyyi ne waaye kay li am mooy bal alaa kawe na kay za moom moomu mooy Omar Omar kay moo kawe bi diini ci diine gi zi zil ifdaali ci diine gi nga xamante ne mooy diine aji gënale woni saawun ginnaaw jigéen yi tamit desuñu ginnaaw benn yoon ndax soo xoolee jigéen yi ci xare yi dañ daan nekk ci ginnaaw góor yi ñu wax leen ne leen képp koo xamante ne góor la goo xamante ne góor gu nooy la rek wala góor guy yokkat ak wala di dellu ginnaaw ak bëgg a ragal ak bëgg a indi lay rek ni ngeen jël xeer yi sànni leen leen ko waaw nga xam ne kon jigéen ñi ñoom it ñu ay jàmbaar lañu woon waaw wan ni saawun ak jigéen yi zaatu nitaaqi zaatu nitaaqi ñi nga xam ne ñooy boromi morso ya boromi ceinture ya ñoom dañ daan takku ba dëgër ñoom it daan jàppale góor yi suñu ne Abu Hurayra dàkkantal la ci Abu Hurayra suñu ne Alfaaruq dàkkantalu Omar la suñu ne Atiq dàkkantalu Abubakar la waaye jigéen ñi nii la leen di dàkkantale ci arab bàyyi ne zaatu nitaaqi mooy zaatu nitaaqi wa ummul fadli ak yaay ju baax ji borom ngëneel gi ummul aymana ki nga xamante ne mooy ummul ayman almifdaali ki nga moo gënoon baada umul jamil ginnaaw umu jamil moom it ci jigéen yi la ginnaaw umu ayma ayman ku ñu war a bàyyi xel la ak umul jamil summa nisaun topp it yeneen jigéen yi baada hatika ginnaaw ñii yii ñi le jigéen yii le kulluhunna ñoom ñëpp nag si mboolam seen jigéen yooyu xawaar yi ay jigéen la yoo xamante ne yu cher lan yu foor lan yu am njëg lañ yu foor lañ daal ci yàlla ñu ñu am kii lañ daal valeur